président tamit ñu wax ci euh, li nga xamante ni mooy jëm ci mbirum euh, combine politique yi ak tamit jëm ci li nga xamante ni mooy Idrissa Seck di mu rejoindre euh, camp présidentiel yéen ñaar ngeen nekkoon woon ci opposition bi yow sax nga nekkoon ci coalition Idy 2019 d' abord président ban jàngat ngay def ci li nga xamante ni mooy Idrissa Seck rejoindre mouvance présidentielle xam nga loolu moom wax naa ci waxaat si ndax li wër ba moom boo muusee tey nit say waxi bopp ak say jëfi bopp moo lay itteel waxi jàmbur ak jëfi jàmbur. jàngat nga ciy def waaye di nga am sañ-sañ ak xel mu dal nangu ni cëru ku nekk la nga tànn yoon wa ngay dem ak taxawaay wa nga say am euh, li may indi comme précision rek benn moo di ba ñu paree ca élection yi la ci la coalition boobu disparaître ndax coalition pour euh, présidentielle yi la woon kon li ci des parti bu nekk cëgal gu ku nekk nag yaa am di méngale say kaddu ak say jëf par rapport ak say engagement démb ak bërki démb constat bi ak conséquences yi man du ma ko def ndax man fa ma taxawoon démb ak barki démb maa ngi fa taxaw citoyens yi tax politiciens yi di yëngatu ñoom ñoo ko war a def. benn ñoo war a jàngat jàngat waxi démb yi ak waxi tey yi jàngat situation réew mi li mu laaj ak fa nit ñu toll ci seen i ay position ak seen ay posture politique bu ñu ci paree dañ ci war a def takk ba pare téye def takk téye maanaam bu ëllëgee bu yow ma tànn na jotee nga mën a fàttaliku. jëfi démb ak waxi démb constance yeeg rigueur bi nga nit ñi samp ci seen bopp pour que nga mën a am taxawaay mais li wér boo wóor de manière général su fekkente ni opération boobu pouvoir bi dafa jëm ci opposition bi dafa doon jublu ni dafa bëgg a faagaagal opposition bi man di leen perte ngeen ndax ngeen seen bopp ndax opposition la koy dundal mooy mere goo xamee ni citoyens yi mere nañ ko nguur gi si ñàkk taxaw gum leen taxaw maanaam wàllu injustice yu bare yi wàllu jaay doole ci suuf si wàllu corruption bu metti bi lu jël alal réew mi dara du la si fekk nga gis kilifa goo xam ne day dugal loxoom ci luubal bu jéggi dayo wala mu dugal loxoom ki trafic bu jéggi dayo ñu dugal ko wëlbati ko làq ko génn ko mu réeri dem yoonam dara du ko si fekk ma ne yooyu mooy métti sénégalais yi ba tax bu kart jotee ñu dëmmooyu nguur dem wuti opposition du opposition bi taxawaay bi mu war a taxawee dëgg mi ngi koy mi koy. ak nu mu mënti taxawee aujourd'hui je pense que ni eh, dama bëgg a taf rek ñu ñëpp ñu àndandoo d'accord si ni euh, comportement gouvernement ak résultat action gouvernement mooy dundal opposition kon benn yoon du indi faiblesse ci opposition nga jëlee fa génn jëmm wala ñaari jëmm wala ñett wala nu mu gën a bare jël ko yóbbu ci pouvoir ba ndax dama koy faral di wax ni opposition ak bopp xale góor ñoo yem. boo watee ba def ni jeex na rek day daal di saq te bu saqaatee karaw yi ñëw ñooy gën a dëgër ñooy gën a déterminé te ñooy gën a aay jëm ci li nga xam ne moom lañ doon xeex kon à ce jour d'aujourd'hui lii am ci opposition bi chance la parce que que un acteur politique déterminé wu ni faa feeñ fis fàng ni man day jàppoon naa ci opposition la bokk léegi bokkatuma si maa nga ca pouvoir ba mais loolu day clarifier débat day tax kenn du nekk si biir opposition bi am ñaari kanam day tax ñi nga xamee ne dañoo bëgg am yéene féete ci pouvoir ba ñu xam ni seen liberté la seen sañ-sañ la ñoom libre nañu dem ci loolu ña nga xamee nag jàpp nañu seen taxawaay tey ak ëllëg mi ngi nekk ci cadre xeex bi ñu war a xeex pour démocratie dellu si xeex pour ñu war a xeex pour xale yi gëm Sénégal amaat espoir bañ di jël seen bakkan di ko def ci gaal yi pour xeexaat pour que réew mi am santé am éducation bu baax am ay emploi yu am solo ñoo ñu jàpp ni seen place ak seen taxawaay mi ngi gën a fës mi ngi gën a am maanaa ñu teew ci opposition bi je pense que ni ñooñu ils seront plus mmh. que tey jii amatul double langage amatul waaw déet déet waaw leer na nañ